ñi ngi sant bu baax di gërëm euh, Cheikh Mouhamad Lamine sure macha allah ni ñu leen ko dige woon jortu naa ni gis ngeen ko nu kawee seen njort ndax bala may dugg rek ci ramasser point yi nga xam ni moom la fi jot a damay wax ni waxtaan bi daf ko wàcce ba nga xam ni dañoo interpellé ci biir waxtaan bi ñun nga xam ni am na ay question yu ndaw yoo xam ni day rot ci biir wax ji jamono yi muy wax kenn ku nekk yaa koy tontu ci sa xel yow am ay junj yu muy def yoo xam ni kenn ku nekk yaa koy àggale ci sa xelum bopp parce que day dafa indi thème bi ci façon bo ci wàll goo xam ni ñun ñëpp dañ koo yëg di ko dund muy système éducatif bi muy nisaamu tarbawi bi nga xam ni Sénégal ci lay dox wax na cocc la fa mu commencé cosaan li ak fi mu jaar ci ay tënk ak fi mu ko daaneele ak yi nga xam ni moom la jàpp ni moom moom rek mooy solution problème yii mu tudd yépp ca yooyu lu palpable la loo xam nit mën na cee teg bët waaye damay commencer rekk ci fi mu jëkke ci nizam bi ci boppam man nag am na ci yoo xam ni sax dama xaw a mal placé tuuti pour wax ko parce que ci système bi lay liggéey moo tax waaye ku gis nen ni nen a ngi euh, système bi ci boppam tërin bi nga xam ni moom lañu ko tëral maqsad bi ci boppam falsafa bi moo doonoon suñu paree ñu defar nit koo xam ni day amal boppam njariñ amal société bi njariñ amal environnement bi njariñ maanaam nit koo xam ne même bu fekkee complété wu la tamit muy nit ku mat koo xam ni bu paree li nga xam ni moom la war a doxal lépp dana ko mën a doxal nga xam ni loolu tax na ñu dugal éducation physique ak éducation yi ñu dugal yi yépp dañ koy dugal même xale bi dañ koy tàggat ci yaramam sax pour mu dëgër ci wàllu yaram ba nga xam ni li mu war a jouer muy rôle bi li ko li ko fi indi ci société bi dina ko mën a mottali ñoom loolu moo doonoon falsafa bi objectif yee tamit am nañu ay raayaat maanaam am nañ ay joxoñ yu sori ak joxoñ yu digg doomu ak joxoñ yu suufee joxoñ bu ci nekk nag dafa am lu mu tënk loo xam ni suñu ca jox doxee dañuy wax ni bu ñu àggee ba évaluer nit ku mel nii lañu war a am loolu moo doon moo moo moo moo ko waroon a tax a jóg malheureusement ki ñuy wut nan la mel parce que ki ñuy wut yoon wi nga xam ni maanaam ciment bi ko war a tabax façon boobu ciment bi ko war a tabax dañ koo jëggaani bitim réew muy système bi ci boppam wax na leen léegi ki nga xam ni bind na ci ab téere ak joxoñ yi ci def ak yi nga xamante ni moom lañ ci jot moom lañ ci jota euh, dox damay tënk rek waxta wax na cee tamit ci ak ak yelleef ji nga xam ni ndaw lu nekk moom la am ngir jàng ngir ngir am xam-xam wut xam-xam moo xam ka dëkk Fongolomi la moo xam ka dëkk njiite xabaan la moo xam ka dëkk Dakar Plateau la kenn ku nekk am nga àq ak yelleef ci boo bëggee jàng-jàng kooku dafa bokk ci droit yi nga xam ne sax moom la ñuy wax droit de l'enfant seen nangami droit yooyu boo ko dee lim bokk na ci droit yooyu maanaam xale bi dafa am xaqu taallum loolu nag am na yu mu ci junju ndax ni mu war a demee demee na ni wala demewut na mu war a demee loolu yéen ñun ñëpp bokk nañu ko déggandoo beneen bi ci tege mooy benn borom xam-xam day wax ni soo dee wax ak nit ci làkk wi mu nàmp ab xolam ngay waxal waaye soo dee wax ak moom ci weneen làkk làmmiñam ngay waxal loolu nag déggin la laaj mooy idée yi ngay dégager wala message bi ngay joxe pour mu mën a àgg ci nit ki faw nga wax ak moom ci làkk bi nga xam ne moom la nàmp loolu nag ci la interpellé ñi nga xam ni maanaam ci la waxee ni système éducatif bi gis na ni li ko doon gën a baaxal dëgg bokk na ci ñu jàng li ñuy jàng ñu jàkku jàng ko ci suñu làkku réew joxe na ci exemple fu mel ni Corée joxe na ci keneen joxe na ci keneen que ni ñiy jàng ci seen làkku réew ñooñu gën a avancé donte tolloo woon nañu léegi raw nañ ñu kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu nag li koy dëggal mooy. ñoom dem nañu ba xam erreur boobu léegi dellu siwaat nañu ndax ñi ngi ñi ngi yaa ngi gis ci biir école yi léegi am na benn système bu ñu tëral boo xam ni dañuy jàngale sa réer di jàngale wolof di jàngale nangam ak nangam mais nag ñu dugal ko ci benn waxtu wu xat woo xam ni dañ koo boole ak enseignement religieux ak langue arab bi ñuy jàng yooyu keni gis nañu ni am na njariñ mais dafa mel ni istiqlaaliya bi ñu war a am muy moom seen bopp ba sañ a def ay tasarrufaat ci biir nizaam boobu dafa mel ni dafa des dafa mel ni dafa des dafa mel ni daal dañ ñoo dicté xam ngeen bu ngeen bàyyee xel di ngeen gis ni nizaam bi ñuy dox muy système éducatif bi soixante soixante onze am na ay xaanunu taw jii yoo xamante ni génn na maanaam islaahaat yu am loi d'orientation ni ñu koy waxee boo jógee soixante onze boo demee quatre-vingt-un ci jamonoy Abdou Diouf soppi ko amaat nañu ci leen dugalee enseignement religieux bi ngeen di dégg nii ci lañ ko dugalee ginnaaw ba nga xamee ni besoin social la woon boo xam ni dafa mel ni waa réew mi dañu ko takk taxawal ni ko pour suñu doom yi mën a dugg ci école yi faw enseignement religieux dafi am ñoom itam accès bi ñu bëgg comme ni mu ko waxee léegi maanaam école yi fees ndax loolu ci la seen poste di duun tax na ñu ni d'accord nañu léegi accordé leen ay heure yoo xam ni dinañ mën a jàngale langue arabe ak di jàngale euh, enseignement religieux en 81 91 loi d'orientation ñëwaat na am ay changement yu mu def 2001 2002 loi d'orientation bi dellusiwaat na 2002 euh, 2012 loi loi d'orientation boobu agsiwaat na ñu exécuté ko ci fin mois de décembre boobu premier janvier loi d'orientation boobu changé na ba bëri ki loolu dugal na li ñuy wax enseignement religieux bi non seulement enseignement religieux waaye ñu fexe ba maanaam li ñuy wax franco arabe yi muy école franco arabe ñu dugal ko waaye aussi ñu intégrer les arabisants ci biir système bi ba amal leen diplôme yoo xam ni jox nañ leen ak pour ñu mën a liggéey ci biir état bi comme ay enseignant dong nag soree gu ñu daanaka waaye ñu yokkal leen tuuti garaat ke ni seen accès ca université nangul nañu leen ko ba nga xam ni boo amee ameetee baccalauréat boo demee foofu ñu orienté la Euh, ci biir 2021 2020 2012 boobu ma lay wax 2012 bi avant muy jeex ci la ñu créé na nag léegi dinañ amal université boo xam ni maanaam dinañ fa mën a continuer comme franco arabe yi bu ñu fa jogee dinañ mën a continuer mais problème bi mooy xale bi bu ñu ko jafalee loolu ba àggal mooy mooy commencement bi bu commencé jàng diine di jàng langue arabe ci bii ànd koog njàngum français mi su demee ci CS yi wala mu dem ci CM yi rek. dañ koy léegi daal di tànnloo suñ ko tànnloo comme ca kër ga societé ba moom dafa mel ni dañoo ginnaawal njàngum diine ba gis nañ ni ku jàng diine daal daanaka ab sëriñ daara nga war a doon boo xam ne ay séer yére yu yu yu xottiku nga war a sol wala melokaan wii nga war a mel ñaawal nañ ko ci seeni bët ba nga xam ne bu ñu demee duñu ñu tànn arab ñoom anglais la ñuy tànn espagnol ak yeneen làng yi ci des loolu xeetu politique la boo xam dafa dox ci biir loolu nag ñëpp dañu cee am dañu ci am seen part de responsable mais rawatina état parce que état problème am foofu mooy favoriser wul njàng arabe bi jàng diine bi ni mu ko war a favoriser ñoom euh, ustaas mi ñoom ñëpp ci système bi la liggéey xam nañu ni muy demee ci biir école yi ak ni ñu favoriser jàngalekatu français yi ci jàngalekatu arabe yeeg yu mel noonu am na yoo xam ne ñemewuma cee dugg parce que damay bañ ñu jox ma dee <laughs> waaw bu ko defee. fi may daanelee nag mooy euh, ñu bàyyi xel itam ci nii euh, waxtaan na ne tamit ci nii gis nga nit soo dee jàng aw làkkam làkk dafa jaxasoo ak culture képp koo jël aw làkkam di ko jàng culture am moom ngay moom ngay am da ngay commencé di doxe doxinam di waxe waxinam di solo solinam di lekke lekkinam léegi nag indépendance bi ñu war a am dëgg-dëgg psychologiquement wala ñu am ko moo xam économiquement socialement faw ñu dem ak suñu bopp dem géeg suñu bopp mooy ñu dépendre ci ñun li ñu am ca loolu pourtant du lu ñuy làmbatu moom la oustaz wax léegi moo di ni Serigne Touba mi fi jaar tajruba bi mu def gis na résultat ñun ñëpp teg nañ ci seen bët fexe na ba defar ay nit nit ñooña defar ay nit bu dee dañoo bëgg a defar nit koo xam ne mën naa nekk ci société bi nekkin wu normal exemple baa ngi noonu defar na ñoo xam ni mën nañoo dépendre ci seen bopp sur le plan économique parce que loolu murit gi doy na ci exemple waaye tamit sur le plan social muy ci wàllum istima muy wàllum penc mi ci boppam defar na nit koo xam ne fu mu dem man faa nekk kon loolu doy na sëkk exemple ci nee na leen moo ne bu ngeen bàyyi woon bee ñëw jàpp ci boobu yàlla bii dey du tere li ngeen bëgg di ngeen ko di ngeen ko am ca bii sax mooy alxaayatul asma moo gën a kawe ci ngeen gi gën a mën a amee li ngeen bëgg euh, sëñ Mouhamad Lamine junj na ko euh, beneen indiwaat mooy euh, maanaam loolu lépp nag nga xam ni bi mu ko waxtaanee tomb yi bi mu ko suluñee ba pare dafa wax ni loolu ma wax lépp lu négatif la yooyu laa yooyu laa li mu indi mooy azma axlaaxiya maanaam wàllum jikko dañu cee am crise crise boo xamante ne nii maanaam daf ñoo laal ci wàllu jikko laal ñu ci wàllu société laal ñu ci wàllum économie laal ñu feneen laal ñu feneen ba nga xam ni doom dana génn bu génnee dem fii rek bu ñëwee daanaka daal di am soppiti goo xam ne boo yeexee dootu mën a nekk sax ak waajuram bu ko defee kon loolu laa fi for rek ci ay tomb parce que moom waxtaan wi dafa riche de telle sorte que am na yu baree bari yoo xamante ni nii euh, de junj doy na boroom xel bu ko defee kon waaw bu ko defee kon damay jox oustaz ma ma ma ma jama su ñu jox sëriñ Assane Sall moom itam mu joxe ci euh, xalaatam parce que euh, dama ni euh, lii ku nekk daanaka mën na cee wax bu ko defee dina ñëw ci sëriñ Abibu keneen koo xam ni waaw soxla na joxe ci kàddooma tamit ndax temps bi des na tuuti incha allah kon nañu jox. bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di bu baax a baax. Euh, man li ma ci wax nii daa nekk kàddu yu gàtt la rek mën na maa wax ni sax lii sëñ Lamine doon wax wax ji dafa matale sax ba daa nekk sax naruma ci woon a jël kàddu waaye kàddu yi maam Thierno dafa am lu mu delloo si ci man euh, sëñ Lamine ñi ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla sàmm la te aar la te yàggal saw fan wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool te ku ko diglu it danga yëg ne kii waxtaan li muy wax xam na ko te leer na ci boppam euh, te it wax moom sëriñ daara la jàngalekatub alquran la euh, loola day wane ne rek lim doon wax ne ñi génne ci njàngaleem sëriñ Touba lu baree bari dafa daje ci ñoom ba léeg-léeg sax bu ñu toogul wax sax daanaka doo ko xam kon dañ koy ñaanal yàlla aar ko te sàmm ko te guddal aw fanam man li ma ci jot a wax rek mooy sëñ Lamine dafa am lu am solo lu mu wax mooy daa wax ne école bi nañu wax ne dañuy jàngale waaye nañu ci génne yàlla man nag loolu dama naan dëgg la dama koo dund maanaam dama naan loolu lu wér la man dama naan Sénégal anam gii ñuy jànge nga xam ne mooy école publique bi li ñuy tuddee njàngum tubaab dëgg-dëgg nit ku ci génne rek maanaam sàmm sa diine sàmm sa jikko sàmm sa aada ak sa cosaan loola ndimbalal yàlla la wala boog taxawug waajur la waaye programme ban lay jàngal moom ak la ñuy def ci yow dëgg-dëgg maanaam lu laale ak diine ak jikko ju baax dëgg-dëgg sax nag xawu caa mën a nekk mën naa ci joxe ay misaal yu bari rek yàlla dafa def moom mii doon wax di maam Thierno ci système bi la nekk xam na ko man mii nekk naa ci yaakaar naa am na benn syndicaliste boo xam ne bu siiw la dana faral di dégg muy wax lu bare bari ci wàllu système bi loo xam ne ñëpp mën nañ ci teg loxo kenn mënu ko wetti euh, yàlla dafa def ñun dañuy jàngale njàngalem diine ci école yi man. bu may jàngale damay xàjjale góor ñi ak jigéen ñi dama naan góor ñi nañ toogee ne jigéen ñi nañ toogee ne la ndax loolu la ñu diine wax waaye ki nga xam ne day jàngale tubaab moom bu ñëwee dafay jaxase góor ak jigéen benn bis xale yi laaj ma daan ne ma waaw lan moo tax boo ñëwee tàqale ñu te ñee bu ñëwee jaxase ñu ah ma ne ko man moom li may jàngale diine la te li ma diine sant mooy góor ak jigéen dafa am at yu ñuy toll surtout dañ leen a war a tàqatle ñoom ñaar ma laaj ki nga xam ne moo jiitee ma ne ko lan moo tax ñuy jaxase góor ñi ak jigéen ñi ndax dañuy jàpp ne fu góor toog rek jigéen dafa war a toog maanaam ecole tubaab bi gëmuñu ne jigéen ak jigéen daa war a toog góor ak góor daa war a toog fu góor toog jigéen daa war a toog ci wetam loolu moo am ndax ñun loolu la gis ci système bi te loolu moo am dañ leen di jaxase léegi nag gëm googu ñu gëm ne dañu leen a war a jaxase loolu man jàpp naa ne jafe-jafe ci tege mooy maanaam nañu xool xale yi programme bi ñuy jàngee mbokk yi lii may joxe nii ab kaye la maanaam kaye bii li sëñ Lamine doon wax da koy firndeel mooy jigéen joo xam ne dafa summeeku def yaramu neen moom lañ ci moom lañ ci def léegi kaye bii moom la ñuy jox xale bi mu di ko bindee di ko jàngee léegi xale bi kii lay gis moom bu boobaa kii lay jàpp ne moom mooy royukaay moom mooy ci baax kon loolu day wane ne li mu doon wax ne dañuy jàngale waaye nañ ci génne yàlla loolu lu wér la beneen bi ci tege mooy. dañuy organiser mën nga ne da ngay jàngal xale bi parce que dañu naan xale bi lu ko neex na sol man dafa am yoo xam ne li muy wax nii dama koo dund maanaam benn bis damay jàngale benn xale ñëw am nu mu soloo nu xaw a doy ma ne ko déedéet doo dugg fii yow nii nga soloo baaw damay gàttal rek ma dem ci ki jiite école bi ma wax ko ko mu ne ma ah yàlla li nga wax nii de dëgg la nii mu soloo day wërta wërta ñëw waaye nag ana pexe daan ne ma tey boo demoon ne ne ko doo dugg ci classe bi bu boobaa dañuy ñëw dalaat ci sa kaw ndax dañu naan amoo sañ-sañu génne ko ndax école bi école laïque la lay laïcité la mais buñ ne laïque la léegi yow ñu ne la jàngalal diine waaye diine ji ngay jàngale bu ko xale bi dund benn mbokk day wax ne damay jàngale kuuru alquran fi may jàngalee kuuru alquran ñu ñëw dagg sama kuur di yëgle am fecc ab sabar bu war am ci école maanaam kuuru alquran bi lañ dagg di yëgle ab sabar bu war am ci école bi maanaam lool nag ngir jeexal rek tënk ko mooy yaakaar naa école bi war nañ koo war nañ koo xoolaat kàddu gii may wax lu ma yëgle te lu ma lu ma bëgg ñu bàyyi ci xel la masalan fii ci tuubaa dama mos a dégg Sidil Amin Niass yàlla na yàlla yërëm mu wax lu am solo mu ne ñun ñu baree bari sunuy maam doon jàmmaarloog tubaab bi tey day mel ni ki tubaab bi xaw naa am la mu bëggoon ci seen ay dëkk mooy lan mooy fexe ne ba njàngum tubaab ak nam ko bëggee am na foofa tuubaa rekk la amut loolu nag man dama naan jamono ji war nañ koo xoolaat li tax ma ne war nañ koo xoolaat mooy dama mos a dem benn barab fii ci lu soriwul Touba ci Mbàkke li may wax dama koy junj mu leer bi ma demee am lu may wut maladie yëglu bi ma yëgloo euh, fekk mbokk mi dafay wuy téléphone mu ne ma jàll sil ma di dugg daal di toog ci bureau bi muy wuyu téléphone ndax li muy wax nëbbu ma ko ndax man maa ngi toog mu daal di ne am kuy waxtaan ak moom ci wàllu école bu mu war a samp Touba mu ne ko Touba boo fi tabaxal école bul fi taxawal école diine taxawal fi école tubaab. ndax waa Touba tubaab lañ bëgg njàngum tubaab lañ bëgg maanaam li ma bëgg a wax foofu jubluumaa laal ay sentiment wala kenn waaye damaa jubloo wax ne Touba bu ñu soo seetloo école privée français yi fu nekk ma ngi fay ubbi léegi nag loolu bu ñu ko teeluta maanaam organiser maanaam fexee xool nuñ koy taxawalee jàpp naa ne ndoonal sëriñ bi mën naa dem ba sànku ndax ñu baree bari tey gëmatuñ ne seeni doom dañu leen war a jàngaloo diine maanaam waaye la gëm mooy tubaab la ñuy jàngi ndax dañoo jàpp ne njàngum tubaab adduna ca la nekk te yaakaar naa sëñ Lamine tudd na fi Alaaji ji Mbay tudd fi nangam tudd fi nangam tudd fi nangam ci réew mi ñëpp ñi nga xam ne tey amal nañ njariñ askan yu amal njariñ réew mi bu ñu xoolee tey ay nitu daara lañ wala bu ñu nekkul ay nitu daara génne ci école bi bu ñu xoolee ay nitu diine ñu mel ne ki sëriñ Saalix ñooñu la ñu lënkooloon ñu yar leen def la ñu def ci ñoom kon jàpp naa ne man li may wax rek mooy mbir yi war nañ ko organiser waat war nañ koo xoolaat ndax dama naan bu ñu demee ba Touba ay école di fi taxaw di jël ay feetu feetu feetu feetu pak ay feetu pak